arbitre bi sifflé na combat bi ñoom ñaar ku nekk jiital na sa tànk càmmeñ Bruno Modou Lo ak Balla Gaye 2 Modou dóor na Balla ñoom ñaar attention dóor mu daanu attention Modou Lo Balla Gaye numéro 2 attention ñoom ñaar jàppante nañu Modou Lo Balla Gaye numéro 2 ñoom ñaar ñi xeex attention ñoom ñaar ba Balla Gaye ngi dóor Balla Gaye ngi dóor ay perkit moom ak Modou Balla Gaye numéro 2 moom ak Modou Lo attention ñoom ñaar Balla Gaye numéro 2 ak Modou Lo attention Modou Lo ak Balla Gaye Balla Gaye fax Balla Gaye 2 Modou ñoom ñaar Balla Gaye 2 Modou Balla Gaye 2 Modou ñoom ñaar ci suuf Balla Gaye 2 Modou Lo ñoom ñaar Balla Gaye na Modou Lo la ilaha illallah Balla Gaye 2 daan na Modou Lo la ilaha illallah gis ngeen xamante ne ni moom moo amoon tey ci stade de l'amitié gis ngeen li nga xamante moom moo am mbokk yi Balla Gaye numéro 2 ak Modou Lo ñoom ñaar ñoo doon bëre seen revanche Balla Gaye numéro 2 bokk yi gis ngeen jël bi mu daan bu leer. maam Cheikh Ibra Fall la nga ni. man kii kan Modou Mbaye Modou Mbaye Baye Fall. Modou Mbaye moo ñëw. ci weeru safar bi ma damay seet si ñi ma bokkal famille mhm. maanaam nekk ci ci màggal mhm. damay màggali mhm. dama war a dama war a Tuubaa dal ba daa war a neex sëriñ bi dëgg la ma ne damay seet waaw li nga def rafet na fi nga ñëw rek nga war a ñëw. waaw parce que fii moom àddina bi waaw ñëpp ay laaj mooy Rita. da yàq na da yàq na da yàq na ma kii de. Rita ana foo ko gis xam ne si am na solo Ana ama xanaa ma daal daal yoon la. waaw xamoo xamoo mbër. ah Eumeu Sène a nga nekk ah mbër. non mi ngi nii ah, mbër. Eumeu Sène a ngi nii. amee nun am na benn fa xaw ma fa laa doon def. man maa nga nekk baba muy si ay mbër. ah mbër. waaw da ngaa war a tekki jën nga yëngal ko. maa lay dégg waaw Béyum Ndeye la dégg ba maa lay siyaare yaay noonu. maa ngi sant non léegi dama ci war a def. ba pare non màggal gi ma ne 47 champion. yal na yàlla yokk waaw dëgg la yal na yàlla fay macha hmm. allah en tout cas kontaan naa kontaan nañ bu baax a baax mbokk yi gis ngeen Eumeu Sène ni mu def nii jox nañu xéwal ba pare jox ñu ay xalaat macha allah yu am solo kontaan nañu yàlla yàlla defal la jàmm yow ñoo far. baax Fall leen. diwaan. Yaram yëngul ci màggal gi. <laughs> joxo yokku la barki Cheikh Ibra ñëwal li mooy gay moonu géej ñëw leen yëngu bay faal aja faal yàlla na sëñ Tuubaa fay yàlla yàlla fay ñu ngi suñu kër papa Sëriñ Sam Bousso ñëw ngir ñu waxtaan tuuti rek ci màggal gi papa màggal gi la ñu bëgg ñu nga baaxee ñu ci tuuti mu mel ni sëriñ bi bi muy dem bi muy dem ci géej gi ndam li nga xamante ni moom lañ daal ndamal képp kuy doomu aadama la waxuma nit ku ñuul la mais képp doomu aadama asbillahi mina shaytaan rajim alhamdulilah wasalaatu wasalaam dafa nekk loo xam ni dara da cee génn diine lépp lépp rek mbirum jaamu yàlla mboolem jaamu yàlla bi ci doole mooy sant su mooy sant yàlla sant hmm. waaw ndax sant dafa bari lu mu làmb ndax jamono bi nga toog di sant yàlla yaa ngi tudd yàlla yaa ngi fàttaliku xéewal yi la yàlla defal yaa ngi ñaanaat hmm. ndax yàlla moo ne la in sakatum laa si dannakum kon sant dafa làmb lu bari tayit yàlla bu la defalee dara ak lu mu mën a demee ci xéewal hmm. dafa bëgg nga sant ko hmm. ndax boo santee mu dolli la waaye boo sant rek am bakkaar bu mag ci gëm yàlla xam ne yàlla du wor te loo ko jox mu delloo. dégg nga kàddu yi nga xamante ne nii sëñ wax nañu ko. tey ñu jëm ci màggal Sénégal nag bu ñu nee màggal ndaw yi Sénégal gën a sawar li nga xamante ne moom mooy màggal te yoo xamante ne bind na ko ci doxalinu ndaw bu ci mel ni tasawudu sixaar bu ci mel ni yeneen ak yeneen yoo xamante ne nii sëriñ bi jàngale na ci ci ndaw war a doxee. naka la ndaw ñi war a doxee jëm ci màggal. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi sant yàlla bu baax di jël ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo xoolee sëñ bi hmm. idéologie murid bi nga xam ne moom la fi indi hmm. te mu yaatu lool ba ñun ñëpp ndeysaan doon ay ba tey jii nii hmm. bi mu koy wootee ndaw la woon amul amagutoon lu mat fanweeri at bi mu ko wootee tamit ñu ko toppoon ay ndaw lañ woon ñun ñu ñuy tuddee mag ñi jamono yi ñu topp sëñ bi boobu ay ndaw lañ tàmbalee ko ci njabootu sëñ Bousso bi sëñ Mbàkke Bousso sëñ mm. Afia sëñ Masamba Fati sëñ Masamba Kanni ak mboolem njabootu sëñ Bousso bi rek nga ñëw ci ay rakkam sëñ Ibrahima Fati sëñ Cheikh Anta sëñ Masamba mm. ak yeneen taalibe yi sëñ Adama Gueye mm. Cheikh Ibrahima Fall ñooñu ñëpp jamono jooju ay gone lañ woon ay ndaw lañ woon ci saaxir moo tax nga xam ne eh, dara mëtt xaare ay at loo dégg mu naan la bi may bàyyi ba am ñeent fukki at doog def nangam rek eh, nar naa tardé ndaxte jamono yi ngay nekk ndaw ci nga mën a profité dañ koo dëppaleeg ni ko ni ko yàlla diglee ni ko ni ko yàlla bëggee ni ko lislaam jàngalee buñ ko defee rek danañ am liñ bëgg te danañ ko mën a dugal ci yoonu sëñ bi ba am ngërëmam boo jëlee ci wàllu lu mel ni xam-xam sëriñ Mbàkke Buso bi muy ànd ak sëriñ bi ndaw la booba ndax sëriñ bee ko mag kon ku takkoog nit mu lay yar gone nga ci moom hmm. waaye tey jii mboolem luy xam-xam ci àdduna ak lu nit war a xam dégg nga ba ci bis bi màggal Tuubaa war a doon ren sax ba mu fi jógee léegi 1945 la fi jóge woon boo demee na ko bindee woon noonu nga koy fekk ci wàllu astronomie yeneen xeeti xam-xam yoo mën a dem yu ne da ngay fekk mu peek ko gis ngeen seexantu Jóob site ko ci téeréem boobu ba tàyyi jël référence ci moom dégg nga kon kooku modèle développement la koo xam ne ci daara Serigne Touba la génne dégg nga kuñ mën a sukkandiku la kon nag ñu ngi doo delluwaat di sant bu baax a baax di sant yàlla di sant sëñ Tuubaa ah, di siyaare sun sun kilifa sëñ Mbay Buso Bangaaj bi nga xam ne moo fi toogal sëñ Buso bi culture bi gis ngeen émission bi nga xam moom laa doon def ci weeru koor gi jàng yi ñëw na ci daan ñëw ci émission bi waaye solol ñu xeet sol yoo xamante ne nii ba tey ñu ngi koy sol ci télé bi saa buñ ko solee mu gën a bees muy Rimka borom Rimka couture Touba Sandaga Mouridula maa lay siyaare. delloo siyaar sëñ Modou. maa lay bëggee. nañ la. maa ngi lay kontaane wallaay fii la yaa ngi ci wàccaay gi. yàgg na nga ni ma mu mel ni senegal waaw Murid yi dañu dañu Sénégal. sax du Murid yi kese senegal gépp mm. dañuy fonk màggal. dëgg la bisu màggal bu jotee gaa màggal bu jegesee gaa ñi dañuy bàyyi yitte yin jàpp yëpp nekk ci màggal gi xëcc ko na ñëw moom ci màggal gi la bokk <laughs> bu ko neexee bu ko neexee bokk ci màggal gi waaw lan nga màggal ni ko sénégalais yi di waajee loolu loo si wax. Moodu Moodu màggal. Mhm. waxuma la Sénégal mais monde bee ko war a màggal. Mhm. ndax Sëñ Tuubaa. Mhm. dëgg la ñun Séné ñun sénégalais ñun ñoo ko ñun ñun la liggéey la yoon. waaye defe naa tey li mu liggéey. ëpp na ëpp na Sénégal. waaw njëriñu àdduna bi la. Hmm. defe naa ñëpp ko war a màggal. Hmm. wala Azim ñëpp a war a màggal màggal bi. waa sénégalais yi ñëw ñëw nañ ñawlu ci màggal gi. waa loolu mënul ñàkk sénégalais dañuy ñawlu. macha allah dañuy ñawlu ndax dañoo bëgg lu baax. te màggal gi macha allah ay ngëneel la. alhamdulilah nit aussi booy uti ngëneel da nga war a sañse ba rafet dem dem dem uti ji. macha allah waa yoo de. saa su nekk yëfi murid yi kenn gënu la ci gaaw jërëjëf yàlla na yàlla fay ci barki yonent bi fii la waree waajal màggal gi bëgg koo yóbbu Touba jëbbal lépp sëriñ bi waaw yaa ngi ci yaa ngi waajal yàlla na sëriñ bi fay ilaa shu aw ca borom daaru <laughs> yaa nekk ci waa gi nii di jóg Rose acca gaawal mu ne nga ñëw Fall yaram ndax mu gaan non non Saalum Saalum Saalum taalibe Serigne Sall yow. la nouvelle mariée la toute nouvelle mariée. jërëjëf boobu ci boobu toute fraîche yow Amina Poté dina këram dina laaxatu Sénégal. sunu bu nu sunu kër laa tax salaamaaleykum fu ñu ko jox Amina ñu naan ma jàddal nii. dama waaye ñoo bañ fay ñu. barki maam Cheikh Ibrahima. laa ilaaha illa laa. taalibe Serigne Saliou la moo tax ñu am sañ-sañu ñëw ci biir këram. ñu nekk ci télé yi bari nañu demuñu ci kër kenn barki Serigne Saliou waaw dafa gën de moom sa doon waral ma ñëw ci biir kër gi barki Serigne barki maam Cheikh Ibrahima téeméeri dundee gi duñ ko laal duñ ko laal ah, mais fayal a gis duñ ko laal gën taalibe rek ab taalibe nekk leen taalibe ba pare sax ci taalibe te wéyee ndigal jeex na daal mais lii kenn du ko def. <laughs> parce que sëriñ yaa ngi ñëweloo sa bopp ba man de maa ngi tey maa ngi a gis tey. waaye ñeme naa ko de ndax taalibe gi mu doon gi mu wane ci télé bi ma am sañ-sañu nag ñëw fii ci biir këram mu dugal ñu ci biir néegam jëflante ak ñun jëf jëflante gu rëy gii. ñu ngi ñaan ci barkeb Serigne Touba yal na nga gën a kawe. amiin amiin amiin ci barkeb Serigne Touba yal na nga gën a kawe. amiin amiin amiin amiin Serigne Touba mi nga yaakaar yal na la kawel ba ca kaw. amiin amiin amiin yàlla dogal na murid yëpp la bëgg. man maa leen raw. Serigne Touba moo dogal loolu. man maay taalibe murid yëpp dundal kontaan nañu ci yow. maa gën a bëgg yow ñëpp la bëgg. yow kenn du yow. waaw ndax danoo bokk lu mënta séddoo. naam gise bi mi ngi soog a am. Mhm. waaye ñi ngi séenante chaque jour. dëgg la te ni ñi gisantee noonu la ñuy yëgantee ci biir xol yi dëgg la ndax ñun ay murit képp lan mm-hmm. te murit bu dëgg moom cofeel rek a fay daw mm-hmm. moo tax ñu ngi lay dénk Cheikhul Khadim ak Cheikh Ibrahima Fall oh. yow doxalal rek ñaanal <laughs> non non ñaanalante yow jox ma ko rek Baye Fall jox ma ko rek waaw yal na nu yàlla saxal ci murit ah. suñu ay sadi amin amin amin amin amin amin amin yàlla na nga raw. ñu a comme ni leen ko waxee ba tey ñu ngi ci majaal gi ñu ngi ci safar gi di dox nii ci embouteillage bi rek dajeeg moom ne ko mu droité ci oyofam ci taalibeem ci mbaaxam droiteel rek nga droité maar. waaw ah la nga nag ah ñoo bokk bàyyi. macha allah waaw. Ah, am nga bés nag sa bés ñëw waaw bés bu rëy am nga yow maa barki Serigne Touba maa ngi yow ko bokk waaw bi la boo xamante ne nii àdduna ñu ngi koy waajal senegal ni ñu di waajal màggalu lu ni ñu koy waajalee façon bi ñu koy waajalee waali façon bi sénégalais yi di waajalee màggal dafa jéggi dayoo hmm. loolu loo ci wax ah, gën màggal amuñu lu gën a foor màggal ah tedd ko bi ko bi mu ko bi ko nasee ba léegi gars yi wàccuñu parce que xam nañu moo gën ci ñoom. Hmm. Hmm. moo gën ci ñoom. moo gën hmm. màggal gën ci ñoom lu dul màggal. waaw macha allah. te it ndaw ñi. ndaw Sénégal ni ni nga xamante ni noonu la ñuy def safar gi bu ñëwee foo tourné ñu jo taxaw loola jox la ay xéewal ni ñu koy defee ci weeru koor noonu lañ koy defee ci safar mu mel ni tamit ndawi Sénégal seen solidarité saa su nekk bu yu mel nii ñëwee dañ koy wane. loolu moom euh, Modou ak lu mën a xew dinañ ñu ko nangul. Hmm. ñun hmm. ah. Ah. Ah. bi séddoo bokk bi waaw bokk bi partagé bi. Hmm. oyof bi génn bàyyi sa oto sa kër. bàyyi loolu moom nag euh, Baye moom sëñ Touba waaw dëgg la bàyyi sëñ Touba. <laughs> yaa ngi waajal yaa ngi kër sëñ Fall. waajal. ñu ngi waajal bu soob yàlla mais ah, parce que ñun dañuy dem Touba. Mhm. mais ñi nga xamante ne ñu ngi ci kaso yi. Mhm. Ah, caabi féete leen ginnaaw. Mhm. ñoom faaw ñu màggal. waaw. waaw ah, yoon na xam nga màggal gi yaatu lool waaye. macha allah da nga bëgg ñoom ci màggal gi ba pare soo a dem Touba. màggalandoog ñoom. wàccaayu màggal nga soog a dem macha allah loolu loolu lu am sens la yàlla yàlla na ko yàlla mottali te yàlla na nga ci am ndam loolu am solo la parce que frères yi nga xamante ne ñoom la caabi féete ginnaaw ñoom bis yu mel nii ñu ciy yëg seen bopp day lu am solo ba tax na loolu boo ko defee yàlla na Serigne Touba xéwalal la ci yàlla nga ci am lu kawe sa njort ci barke Serigne Touba te maa ngi lay jottali waale yóbbante waa Sénégal ñi ngi gën a kontaan ci yow ci solidarité bi ñu ngi kontaan ci yow ci wax yu rafet yi ci lépp yal na yàlla yokku la yal na nga raw ci barke Seydina Muhammad waaw loolu am na dëgg la dina ko dégg ñëpp dinañ ko dégg amin amin fekkaat fi jàmm amin barkib Serigne Touba am yal na ko def ci barke Serigne Touba kontaan nañu bu baax a baax jaajëfati jaajëf. ngi a Papis a ngi nii Abdou Lahad a ngi nii Baye Fall yaa ngi sama turandoo <laughs> eh, eh wuy ma dañoo ñëw ci safar gi comme ni ñu koy defee dajale nañu ñëpp dugg nañ fépp uh-huh. barki Cheikh Ibrahima ñëpp a ngi ciy jàpp dañuy màggal da ngeen di màggal sax mais ñu nit dañuy màggal te ay Baye Fall la ñuy def yëpp di Baye Fall uh-huh. ñëw ngir waa Saliya a jàpp ci màggal waaw waaw Fall yaaram uh-huh. sant Serigne Touba rek da nga maa bàyyi da nga maa bàyyi bu la fa bàyyi yaa ma bàyyi. looloo maa bàyyi de yow sama xarit yàlla Sëriñ Tuubaa fay. fay yàlla na fii gën a ful gën a yokk. ci barki safar bi. ñu bëggee bu baax a baax lu ñu fi bëgg am ko fi. suñu kër la saa yu fi ñëwee téléphone dañu ko fi may lépp dañu ko fi defal nit ñi nii ñëw nañ ci màggal gi ñu jàpp ci këru murid la kontaan ci ñoom. dañoo ñëw ba Matalik di fi majaalee maa ngi Fall mbaa yaa ngi am jàmm ñu ngi sant mbaa yaa ngi am tawféex naka fii waaw gis nga fii day mooy fii moom mooy prolongement Touba waaw waaw daanaka safar bi bi mu tàmbalee ba léegi nii rek ñu ngi koy dund fii bu baax te saa su nekk nii la fi demee saa su nekk bés bu nekk ñu ko tàmbalee premier jour safar ba fukki fan safar yi tey nag lañ koy tëj tey la ñuy tëj voilà mu tombeek ñaari guddi Ndakaaru yi Ndakaaru yi ñëw rek defee ko fi. nga xam ne si suba ko waaw waaw. si la mu mel ni Sénégal bu bis boobu yee di waaj a si. kenn dootul ànd ak sa sago. kenn dootul mu toll ci misaal. bi muy bëgg ñëw la ñu jëwriñ Mbacke Faye waaw nañu nañ ko dundal nañ ko daan defee. parce que nañ bés bi bu ne wàccee kaamil jàng xasida bu bu ñu julee timis sëñ Issa hmm. am ay tomb yu ñu jàngal ci sëñ bi hmm. bu ñu paree ñu génn ci esplanade bi hmm. jànk du ko si day ñëw kuréelu jël bi ñëw kuréelu Masaalikul Jinaan ñëw dóoru naa dóoru daara yi bés bu ne ñu invité benn kuréel donc noonu la ñu ne rek mu ànd ak xéewal yi <coughs> muy mbégte bi daal muy mbégte macha allah mais mais may fi may dem yëpp maa ngi laaj maa ngi laajte lii may bëgg a wax muy ndawu Sénégal ni ñuy mel ci weeru koor bu ma bu safar gi teroo noonu lañ ciy mel segg café togg xéwal joxe te foo dem ci Sénégal dañ koy def. noonu rek jox jëwri waaw daanaka yoon bi yëpp ni ko waxee rek ah. ñaari tali waaw waaw waaw ba Mermoz ba Mermoz dama dugg Mermoz ma ne jommi naa <laughs> ba dem léegi ci sama papa yi si tubaab yi nekk fi tubaab yi nekk waaw billaahi i xiin billaahi Baay Faal la barki yonent bi takk seen i ndigg c'est un cadeau de Dieu boo xamante ne mm. yàlla der bu ñuul la ko la ko la ko jox sëñ bi dafa ñëw pour sigil der mu ne n'abusez bi de ma condition d'homme noir pour ne pas profiter de moi je suis le serviteur éternel éternel <laughs> mu andi tamit xam-xam. Hmm. nee na moom li mu andi buñ ko doyee ndax gërëm bu ñuul bi. Hmm. <laughs> dëgg la. te sëñ bi ku fuux si moom. ku ko ku ko gëstu rek. Hmm. am waaw waaw. ñu bëri nag loolu sax la ñuy ragal waaye bu ñu ragal la gës gëstu rek ndax mbëgg la sëñ bi waa mbëgg la. na na ko gëstu na na ko sénégalais yi na kitiw. lépp yërmande la waaw yërmande la. Hmm. nañ ko nañ ko téyeel suñu bopp. Hmm. waaw ndax ndax yërmande kese kese kese kese moo tax daal yéen ñu ngi leen di sant. jërëjëf. ci taxawaay bi. jërëjëf. ci Pastef bi. jërëjëf. ci nangoo liggéey bi. jërëjëf loolu yëpp gis nañ ne ci sa baay nga ko doon. jërëjëf te ñëw nag dolli ci leneen. jërëjëf mooy Baye Fall Baye Fall gi ndeysaan jërëjëf. jërëjëf Baye Fall mooy yoon bi. waaw macha allah. waaw murid dëgg. Mm-hmm. Baay Faal. Mm-hmm. jërëjëf. kon kontaan nañ bu baax. jërëjëf jërëjëf jërëjëf di leen sant jërëjëf. ah jërëjëf. Baay Faal bi nag léegi tàllal na këll gi. ah léegi moom faaw ma am lu ma ci def. waaw bak Cheikh Ibra. jërëjëf kaddu am na solo dégg ngeen loolu sëriñ bi moo ne n'abusez pas de ma condition d'homme noir pour ne pas profiter de moi. Je suis le serviteur éternel et quiconque veut le bonheur d'ici-bas et dans doit se réfugier jërëjëf auprès de Cheikh Ahmadou Bamba ñu ngi ci ba tey ci yoonu màggal gi ba tey ñu ngi ci safar gi damaa tourné gis sama jëwrin Ada Xasida ah, loolu la yàlla dogal moom Ada Xasaayit sama kii suñ jëwrin la waaw xaaral ma ñëw sëriñ bi kii sama jëwrin la sama woy jur la maa ngi lay bëggee ma ñëw fekk la ci kër sëriñ Touba sunu kër la sunu kër la kër diine kër sëñ Tuubaa waaw allah yaa ngi waajal jekk nañu ñun ba xëy rek di waajaat waaw bu ñu màggalee ba xëy waaw waajal nañu bis kon fi ne jekk ngeen fi mu ne jekk nañu macha allah ila Touba ila Touba rek jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf maa ngi lay bëggee barki maam Cheikh Ibra Fall eh asloowe maa ngi nii waa Modou Mbaye waa asloowe man may ñëw kër ma sataak ma sayar ndaak fekk la fi ni ah maa lay siyaare muridullah bébé garga champion ah murid bi maa ngi lay siyaare bu baax a baax ndeysaan <laughs> Baye Modou Kane mi ngeen dégg ci tele bi Pape Cheikh Diallo di wax Masata ak Masayer Ndaak eh, Alima Ndion di wax Masata masa Masayer Ndaak Modou Mbaye di wax Masata masa Masayer Ndaak mi ngi nii muridullah Baye Fall yàlla maa ngi ci safar gi maa ngi ci safar gi nekk ci wàccaay jëm Touba ma ne nag mun a ñàkk ma teew fii ndax yow murit saadix nga ndax yaa ma wan li tax ma ñemee teew ci kër gi ñoo nag fekk fi sama frère fekk fi asu law bi mu baax mi asu mi nga xamante ni Sénégal ñëpp ko bëgg man dama laa bëgg maa la raw Modou Mbaye dëgg neexut tey nag sama kër nga ma fekk waaye li la la yow masata ak ma seer ndaag Baye Modou xam nañ ko tëyeeru VIP li lan la yow xanaa lii moom mooy xanaa lii mooy waaj màggal mooy waaj màggal yiw rafet ci tourneel yow kilim Modou Mbaye nee naa faraj laa ilaha illallah dafa yow bàyyi Modou kan mi nga xam ne ci temps la tegu bismillah ndeysaan alfa ba murit màggal gi déjà Sénégal noo gisee màggal gi Euh, waaw màggal bi moom màggal gi euh, wuy na wuy na tur bi wuy na boroom daal. waaw màggal màggal. lu yaatu la. lu màgg loo xamante ni ñu koy mm. ki nga xam ne def ko muy kenn ci ci ci àdduna sax laay wax. Mm. Cheikh Ahmadou Bamba xam nga yaakaar yi jaam yi tey xam nga borom Masaalikul bi. waaw comprendre nga màggal kii. Mm-hmm. te chaque année day gën a neex. day gën a neex di gën a yokk. waaw xéwal yi di gën a bëri. Mm. yoonam moom amul amul tànk ginnaaw. déedéet tànk kanam laa am xam xéewal rek saawan baaw macha allah mu ne sax mu ne woon sama tay ju ne day gàcceel sama démb. loolu leer na macha allah. gis nga fii lu fi feeñ. dara feeñu. lay lay la <laughs> ku sol ay ñawam nag bàyyi faali duñ la wañ bàyyi faali duñ la pièce détaché. Uh-huh. xolli say oom. mu ne teef ne omelette sur la plat ñëw leen fii Masata. <laughs> Masaya Ndaak maa la wax lii. di ñaan chauffeur yi tamit nan daw ndànk. daw ndànk surtout loolu. parce que alxuraan métti na trop. waaw. surtout loolu maa ngi leen ñaan su may sama mbokk man damay dawal li ñoom mais damay ñaan yàlla lu mu métti métti nanu dallu ji tey daw ndànk te xam ne ay doomu aadama la ñu yeb ay doomu aadama la ñu nit ñi dañuy tàggu seeni way jur dem mm. ñu annoncé leen ne leen musiba am na neexul ci xol mm. ku ci nekk boo gémmentoo gaari sa oto nga dal taxaw mm. am solo parce que moo ëpp njëriñ quoi tali bi yaatu na màggal gi màggal gi du jeex barki maam Seera lañ dañ ne dimanche la mais du jeex sëñ Touba defal na loo xamante chaque jour. dañuy màggal chaque jour. heure boo nee barke Serigne Touba màggal màggal maa wax kon dañuy ñaan yàlla sëñ Mountakha yàlla fi yàlla amiin amiin barke Serigne yàlla mu gi mu saxal lii fu mu jëm Touba yàlla suñu amiin dooleel ba mu yegg wax naa leen ko ah, ñu ngi kër capitaine ñu ngi kër capitaine équipe nationale bu basket ñu ngi kër Youssou Ndoye comme niñ ko defee fépp ah ñu ngi kër capitaine kaay toog ni waay capitaine ci safar gi mais maa ngi lay siyaare. mais doo maa ngi lay bëggee am nga micro sama micro mooy sa micro. benn micro la <laughs> mais maa ngi lay bëggee am ñu mbégte daje ak yow am na ñu mbégte tey ñëw fii nga xamante ne nii mooy sa kër parce que bu ñuy wax Sénégal yen yéen yéen a waral sax ñuy wax Sénégal ndax yéen génn di défendre li nga xamante ne mooy couleur Sénégal. maa ngi lay siyaare bu baax am maa ngi soo a am opportunité jàkkarloo ak yow maa ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyoog waa àdduna waaw waaw maa nuyu bu baax xam nga di nuyu ñëpp ni ba trop ba da ngeen di jaar nii rek vite fait mais waaw <laughs> xamoon yi yëpp na si waaw waaw comme lépp si mbégte safar gi macha allah macha allah macha allah maa ngi lay bëggee bu baax a baax kontaan nañu kontaan nañu si ñi ngeen di défendre couleur bi dernièrement rek li nga xamante ne nii mooy compétition bi ngeen jógee gis nañu ni nga xamante ne noonu ngeen def ñu ngi leen di béggee tey lan ngeen wax waa Sénégal ci mbégteem safar bi lan ngeen wax ci li nga xamante ne engouement bi nga xam mooy am ci safar te bi yoon mu fekk la fi nga koy dund ak ñun. daanaka mun naa ne bi mooy première fois moo fi fekk depuis lu yàgg. xam pour gis engouement yi nii sànq maa ngi naan sànq maa ngi romb ñaari tali. waaw naa fa 30 waaw ndax gars yi. day xat <laughs> waaw waaw. mais xam nga affaire bu rafet la. macha allah ñu dem màggali si jàmm ñëwaat si jàmm nga surtout respecter mesures barrières eh. tuuti ak comme feebar yi ñu ngi fi ba tey. Mm-hmm. ñu a moytu mm-hmm. ngi sant ñëpp daal di gërëm. macha mi ngi lay màggal depuis depuis un bon bout de mi ngi lay soog a fekk Sénégal. yàgg na trop ëpp na 10 na waar rek. <laughs> waaw loolu moom amul màggal sax. amul màggal gis ngeen loolu mais ñu lay dégg tamit ci làmb. dama profité occasion ñu lay déggaale waaw waaw la amateur la parfois profession est-ce a a xam yàgg nga suivre làmb. <laughs> waaw waaw yàgg naa suivre làmb xam nga. mooy loo xamante ne man moom man sport local yëpp laa bëgg xam nga man moom vrai sénégalais la. waaw xam nga mais moom dama ko yàgg suivre xam nga xam naa si lu bëri bëri bëri. Mhm. xam nga lépp laay seetaan ñëpp mbër yëpp amul mbër xale yi nekk en ascension tey boo ma ci doon limal quatre wala cinq xale. ñi mhm. nga xamante ni ñu ngi ci suuf war a yéeg. Mhm. kan ak kan nga may wax. tey jii bëri na tey jii làmb ji dafa bëri révélation mm. moo tax xam nga gisoo léegi fipp yi sax def si bëri na làmb ji ubbi na ndaxte tey jii ñu si yaakaar tekki moo bëri xam nga te dafa bëri xale yi am talent xam nga tey ji boo seetee ay Tapha Mbeur xam nga ay Ada Fass def seen combat bi xam nga loolu combat mm-hmm. Mm-hmm. déclenchement xam nga mm-hmm. boo xoolee tey jii ay même Dame Sène xam nga ñëpp ay futur nañ ñoo xam ne si làmb ji soog même chose xam nga maanaam ñooñu foog ñuy bëre ndaxte tey jii ëllëg ñoom ñooy yor kii bi. Mhm. xam macha allah. ñoo tax affaire yi. Mhm. ñu ñaan yàlla daal lamb ji. xool waa ji xam na lamb rek. <laughs> Ah. <laughs> <laughs> ay franc. waaw franc franc franc moom waaw moom moom champion la moom moom incha allah moom bu ko yàlla jàppale. moom champion bu mag war na war na ci mën a génn rëg-rëg. moom rëg-rëg waaw surtout ñoom ñaar ñoom instant mun nañu wax ni ñoom ñaar ñooy kii yi daal. waaw. espoir yi ñoom lañu yaakaar waaw Diène Kayré waaw ay soq ñooñu ci génération boobu la macha allah am na solo ñu ngi waajal ay combat yu mag ñu ngi waajal Balla Gaye euh, Bombardier hmm. ñu ngi waajal yeneen yu mag ñu ngi waajal booy Niang Tapha Tine waaw Balla Gaye Bombardier loo ci wax Balla bu neex lay nekk combat bu neex lay nekk moom hmm. insha allah xam Balla day jëri revanche boo xamante ne ñëpp xam nañu daa bëgg combat bi quatre combats boobu la si gën a bëgg sax. <laughs> macha allah xam nga ñu ñu dem si ak jàmm naa ne ñoom tam sonn nañ si xaar bi. Mm-hmm. xam nga allah. incha allah Baye Fall bi day maa këll gaa ngi noonu ayca dóor Baye Fall. <laughs> waxtaan nañ ba pare Baye Fall bi léegi day maa jaar ayca dóor. ci la 2STV la xewee Bantamba a Tambacounda Bantamba à Lac Rose comme niñ leen ko waxee woon niñ leen ko annoncé woon y'a 15 jours wax leen ni bëgg nañ chaque 15 jours ñu ñëw fi dajaloo avec la famille bu ñu nee avec la famille mooy avec les lutteurs vacances mbër ñu toog waxtaan sottantaay xalaat xool naka lañu ñu mën a mën a fexe ngir làmb mbër gis ci boppam waaye naka lañu ñu mën a fexe ngir lëm mbër tamit. jox làmb li nga xamante ne loolu la làmb soxla dañuy dugg ci biir gis naa fi mel ni mel na ni tey dañoo am ay invité tey mel na ni dafa am ñeneen ñu fi ñu dul mbër yi. sang bee faal yaay borom innu moodu roqaya faal maam saaliw faal yaaram nga ñun ay personnes handicapées yu am jom lañ di bañkat waaw damay wax rek nee naa Wally Seck travail qui paye n'est pas travail n'est pas qui gëm suñu bopp koo ci gis mi nga ak métier ci aar bi lañ nekk di ci dund mu metti lool nag mais ñu ànd ak moom di ko dund mais nag ñu war nu jàppale ci lu bëri xadee ngi ni bu wooyee rek nga ni gongo man ba ma yóbbu ci baara mbay ma dem ba ma yóbbu ci ceebu jën ma dem Bindarada Tawrat Basakid Pachakid Brada Pachakid Brada Pachakid Brada Pachakid Brada Charo Brada Giz Gind Brada Giz Gind Giz Giz Giz Gind Chakid Batas Gind Gind Re Gind Gija Gind Chakid Chal Gind Gind Gind Gija Gind Chakid Ay mo do Gind Gija Gind Chakid Tas Bak Re Mo do bunda ba reng reng Sénégal mooy mooy Sénégal Sénégal Sénégal suñu dëkk la ñii ñooy ñun ñu suñu biir xol yi suñu tool sama xol baa ngi frigidaire sama xol baa ngi mel ni glace barki Serigne Saliou sama xol baa ngi neex ndax ñii bu leen neexoon toog ne duñu duñu duñu daa baywaar bu leen neexoon toog ne duñu góorgóorlu bu leen neexoon toog ne bokkuñu mais booy xun nañu ci biir société bi la ñuy dugg ci biir bokk ci ñu ngi def ay formation artistes yéen a koy dégg am nañ seen ay métier yàlla na yàlla sàmm leen ngeen bàyyiwaat leen xel xam ne ñoom ñu ak ñoom ñoo bokk société bi te ñu ay jàmbaat lan mbokk yi Bantamba moo mel noon tey ñu ñoo foraale loolu indil leen ko ci biir Bantamba ndax Bantamba mooy penc mi te ci penc mi la lépp xewee ba tey ñu continuer dañuy vacances de dee. ok jërë ngeen jëf gis ngeen loolu comme ni ñu leen ko waxee yegsi nañu bi ñu yegsee gis nañu suñu ay frères suñu ay frères artistes yoo xamante ne nii bégal nañ ñu te fii ñu toog nii ba tey ñu ngi ñuy bégal ndax ñu ngi dégg ay mélodie yu doy waar te yaakaar naa ni sax ñoom la ah mbokk yi comme li na ko waxoon yegg si nañ ci vacance bi yegg nañ ci vacance te bu ñu nee vacance relaxé la toog waxtaan waxtaan waxtaan sottante xalaat. jaalewaat nag suñu papa ji di Sa Thiès di jaale njabootu wax ne Modou du wala dañoo bokk nag moom koñ géejawaay ay carrière nag mënu ma soxla lu bëri mais sama yaay. bokkoon nañ si ñu ko doon supporté kon sama yaay tamit mu ngi koy jaale famille ñoom Balla Gaye yëpp sama yaay mu ngi leen koy jaale maître Moussa jaale na ko ñoom Balla yi nag ki nga xamante ni mooy Boy Seye ñu koy bu baax waaye comme ni leen ko waxee mbokk yi ñu ngi ci vacance bi bu ñu ne vacance relax la tey malikaa ngi fi Kër Massar ngi fi Lamsaar ngi fi Kër Massar lépp ah su ma nee Lamsaar Kër Massar Alioune Diop représenté Lamsaar Kër Massar ah Alioune Diop su ma nee Kër Massar Boy Seye mi ngi fi su ma nee Malika booy Malika mi ngi fi booy Malika mi mbokk yi ay jamono daf fi amoon benn jafe-jafe dafa amoon benn euh, agression bu ko daloon dañ ko agressé woon dóor ko bal balu pistolet famille làmb ñëpp jug nañ ci ñëpp ñëpp ñëpp wax nañ ci mu nekkoon mbir moo xamante mbir mu metti woon la ñun famille làmb ñun ñëpp ñu massa woon ay moroomu mbërëm daan ko massaw daan ko mettitlu bu baax a baax a baax tey nag yàlla dogal na ñu ngi autour d'une table fa war a waxtaan ci làmb vacances école tëj na sunu école tëj na fi mu toll ñu ngi vacances ma bàyyi leen ngeen nuyoo nuyoo leen la la parole elle est libre ku mu neex waxal ñu ngi ci vacances ñu def leen lu leen neex ñu waxtaanee ko rek ñu waxtaanee ko. waaw Modou ginnaaw baat onze billahi mina seytaan rajim dañu sant yàlla julli si yonent bi gërëm suñu ñaari waajur di waa Kër Massar yëpp ak waa Daaru Moussi di nuyu suñu membre Daaru Noreyni di la nuyu Modou Mbaye comme ni nga ko waxee rek depuis nga démarré sa liggéey si làmb ba léegi lu rafet rek ngay def ba moo toogal rek mu jàpp ne yow moom nga gën a nekk copain am. Mm. parce que liggéey bi moo rafet te ku too ci du góoloo si benn affaire ñàkk fayda quoi. Mm-hmm. moom moo waral mbër yëpp la jox ci yow. Mm-hmm. nga di nuyu zoo di nuyu zoo bu baax a baax. mu ngi doxal làmb. waaw loo nekk si làmb di bëre bàyyi bëre. li muy jàppalee làmb mm. gars di ko gis si image yi mm. li muy def ci suuf moo ko moo ko ëpp waaw li muy def ci suuf moo ëpp li muy def ci kaw waaw defu ko ngir dara ko bu ci kenn mer bu ci kenn wax lu ñaaw na ñëpp ñëw jàppale ko parce que làmb ñi ciy liggéey dafa bari kon moom bu ko neexoon mu dem toog gérer leneen kon ba ko ci làmb di nuyu Malika ko waxee rek di ko masawu di ko ñaanal mu ñëwaat ci course bi di nuyu Aline Diop aussi tamit di doomu Kër Massar xam nga di waa 2STV nuyu Pekaay Mbaye di jaale suñu papa Balla Gaye di ko jaale Balla Gaye de kii Doubless maa ngi koy ah. jaale Balla Gaye de sama xarit hmm. eh, maa ngi koy jaale bu baax ñaan Doubless na suuf ak si kaw sant gars yi zo champion mag bi sant booy Malika booy Sow xam nga sant suñu waa koñ fu ma jógee Kër Massar waa Lamsar bi yëpp comprendre di jaale Balla Gaye de ak saa Thiès maa leen jaale seen papa xam ne àdduna noonu la quoi yaa ngi si jàmm yaa ngi vacances waaw vacances bi rek mais ñu ngi xam yow ci sareet yeeg fu ne laa lay yor. non Modou Mbaye moo jeex. yow ay sareet sax dañ ci yéeg. yow da ngaa baax xanaa seen ko damay foto moo dem koy génne nga ni ma. barke réew mi doy waar. jeex jeex. ñu bëggee di siyaar di jaale suma bopp Père Double Less di ñaan di ko ñaanal yàlla suuf woyof ci kawam di bëggee suma frère Boy Sey. di bëggee Alioune Diop di nuyu suma grand jo di la bëggee Modou Mbaye ndax yow moom sa taxawaa ci làmb kenn du ko wax ko dëgg yàlla ba ñàkk bu ñuy yokk njom di def fula ak fayda c'est grâce à lui quoi am nga ci par de responsabilité. parce que ni ngay dundee làmb ni ngay jàppale jeunesse yi ni ngay jàppalee mbëri ndaw yi loolu noonu dafa am beneen motivation bu muy def ci ñun ñun mbëri. Mhm. ñu wax ko ñu ñaax koo wax. Mhm. di bëggee zone yi. Mhm. ci li ñu weesu rek. Mm-hmm. dëgg yàlla mm-hmm. ndog ndog dal na ma fi moom it xamuma xamuma ko mm-hmm. làmba ñu boole mu def ci ay jéego yu am solo dëgg yàlla waa jëlee médecin fu sori indi ko fii pour mu suivre ma ba tey dogal lii nii maa ngi koy remercier ci loolu ah. waaw di ñaanal tamit ñi nga xamante ni tey ñoo ci doon jàpp ba tey mbër mi mën a ñëwaat ci axlu làmb pol bu rafet dee na ci waaw suma yaay jooju noonu aw ma fayam mention spéciale ah. ak Idrissa Ndiaye bëggee ñëpp. làmb am fu mu toll. ñi ci ñi ci nekk di ko pratiquer yéen ay xale yéen ñëpp ay xale ngeen. kenn amagu ci 33 ans kenn amagu ci 35 ans yéen ñëpp ay booy ngeen ñu xëy un bon rek ñu tëj ko seen activité yëpp arrêté naa. loolu yoon nag dañu waxtaan naa ko. waxal ci kaw. gars yi dañu waxtaan naa ko parce ñu xëy rek tëj ko parce ñu ko yaakaar dafa bari Modou Mbaye. Mm. tey jii ñun amuñu suñ suñ doole suñ doole moo ñuy fay. ñu jeexale nañu toog ñu andi ñeneen ñu kon nañu jàppale gars yi bu dee bu dee maanaam ñoo ko bëgg waaye affaire yi ñaax fay wala la dañ koo bëgg. dañoo bëgg ñaata combat nga ci làmb. Modou Mbaye est-ce que bëri woon ma onze combat nga am. sauf neuf xaw ma sept. am nga victoire. kon de moo ko. deux défaites quoi genre yooyu. trois défaites trois défaites. ak ak huit victoire. huit victoire trois défaites. loolu loolu mbër mu mag a koy am de. non man damay jàng rek. yan ñu ba léegi bu mu jaam bi dogagul parce que ñun ay mbër ay xale lañ yaakaar si làmb comprendre nga saison bi tijji Covid bi yàq ko comprendre nga ñu toog bëriwul yaakaaraat làmb di di daas moo ñun chaque jour dañuy entraîné man làmb rek laa am man aw ma leneen lu may liggéey lu dul làmb man làmb rek laa gëm moo tax man caaxaan yi gars yi di def si làmb ak yenn communication yi gars yi def si làmb yenn saa damay toog di ko déglu man damay am lu ma metti làmb ji gis nga làmb ji ñi nekk ci làmb ñoo bëgg a yàq làmb ji. ñi dund làmb ñi dund làmb ji ñi nga xam ne ñoo war a tedd si làmb ñoom ñoo war a yàq làmb. ñoo nar a yàq làmb. waaw parce que si communication bi. barke sëñ Bamba ba si yenn mbër yi xam nga ñi ñuy waxee xam nga ñoom Balla Gaye ñoom Modou Lo bu ma gisee gars yi di leen teg teg bët wala teg mbagg di communique non ñun mbër yi nañ dem entraîné ji quoi ñu ñu liggéey xam lu ma la ñu entraîné ñu liggéey bañ a def yenn affaire yoo xamante ne bii gars yi dañ koy def bañ na Balla Gaye jàppalewu ma moo ñoo jàppalewu ma kenn jàppalewu jàppale seen ma egg si nii mi may doog a bëre mbapat moo ma jàppale kenn su ma ko defee li ma doon def ba egg foofu noonu su ma ko defee damay egg si kaw waaw comprendre nga waaw bopp laa gëm man damay liggéey comprendre nga nag gars bàyyi caaxaan te ñu liggéey quoi dem entraîné ji métier métier boo xamante ne bii Bécaye Mbaye da see bokk Malick Thiandoum bokk si xaadim Samb bokk Lamine Samb bokk dama lay tënkal. waaw nekkul liggéey bu ñàkk fayda. liggéey bu liggéey bu a bu ëpp personnalité ci Sénégal mooy lamb. dëgg la parce que ñi ci bokk la. nga ñëwaat nga ne Balla Gaye si la bokk. waaw international la. Bombardier comprendre nga. gars yi bu ko ñàkkal fayda. di tëj ay lamb. non du caaxaan de. lamb du caaxaan de. Mhm. xool kër gële kër Modou la de. clim bi nu mu seddee. Modou fee la yeewoo. kër gu giri gële. kër gële allahu akbar. seen comprendre nga dañ jël benn étiquette def ko ay mbër mu bëgguma loolu moo tax yéen dinaa ma du ma wax sax mais comme kii ni mu waxee est du mbër yenn mbër yee tax ñuy teg mbër yenn étiquettes yi du mbër kese de ak làmb foo ci dugg rek mën nga fa coppati kuy yàq làmb parce que làmb ci groupe yi ngànk làmb am na mbër am na promoteur am na manager am na amateur am na supporter am na fan club am na fan club mais gis nga buñ bëggee jël am na CNG tamit am na CNG gis nga buñ bëggee jël làmb di ko di ko teg si promoteurs yi naan ñooy jox mbër yi promoteurs yi defuñu dara dañoo yor seen xaalis di liggéey. te ay privé la kuy liggéey gañee tax ngay fayee koo tax ngay liggéey. dëgg naa dëgg waay gañee tax ngay liggéey. mais mbër mu bëgg a bëre te mënoo jënd trois blocs looy looy def si làmb. wala nga seetaan si rek gars yi dañuy liggéey mënuñu la fay benn un million mënoo leen a jëndal sax wecc xam nga gars yi dañuy liggéey na mbëri dem entraîné ji te bàyyi yéen promoteur bi jël xaalisam def ko ci làmb jëlu ko pour may ay bologam non non dafa ñëw da ko jaay pour jaay bologam tey ku dama lay jox exemple ci ku mel ne tey ma jël exemple man Liss Ndiago Liss Ndiago premier combat bu ko promoteur bi fay woon ay ticket instant est promoteur ñeme na ñëw di ko fayewaat ay ticket kon na mbëri dem mobiliser ji wax xam nga dem buñ la fayee ay benn yoon boo boo mobiliser duñ la fayaat billet waaw ok système la quoi problème loolu du problème mu làmb de na gars yi bàyyi wax yooyu ñuy jël di ko def problème mu làmb mooy yi booloo promoteur yi booloo ñu liggéey promoteur yi di tëgg combat yi mbëri dem entraîné ji bëre ku si daanu xam ne yow yaa liggéeyul da daanu nga dem liggéey ji waat mais moo comprendre nga parce que tey daan xuloo nga bëri daanu da ngay xeex ñëw ñu fi dégg ñuy xeex làmb ji naan ay promoteurs yeeg ñooñu dañoo dem ba perte si rek di politique bëgg ay ay autorités ñëw jàppale leen rek xam nañ ne mënatu ñoo amati si làmb ñu ñoo yàqal ñun ñi nga xam ne ñun ñoo am suñ doole bëgg a teg si làmb Boy Malika di poser cent et quelques kilos mënoo samp cent cinquante kilos sa kër xam nga lu waral loolu parce que da nga bëgg a jël làmb rek te làmb fayagu la hmm. làmb da ko war a boole métier ba keroog làmb di la moom ku la làmb moomee da ngay gis benn Boy Malika benn combat lay def dëkk yëpp topp ko. kon booy tàmbali làmb nga koy séddoo ak da nga koy séddoo ak sa liggéey. ba benn moment làmb moom la nga bàyyi ko que man damay suivre ku mel ne ay Mouhamed Ndao mm. Tyson référence la. Mm-hmm. ku mel ne Yaxya Diop yi. Yékini ku mel ni Bombardier. Baboy ñoo ñu ay dañ leen a war a def idole bu ci bëri de mais esprit bi ñu daan dundee parce que ñooñu dañ daan ñëw. di dundul làmb di am leneen lu ñuy defaat ci suuf. waaw bis bi làmb moomee ñu bàyyi loolu. mais imagine toi Boy Malika tey amul métier topp làmb comme ni làmb demee ni ñu tëj làmb lu mu yaakaar. waaw am na papa am na yaay. Mm. am na mag am na rakk. Mm. te ñooñu buñ yaakaaree ci moom fu mu jëm. dëgg la day defi leneen lu bokkut ak làmb. kon ñun mbëri ndaw yi buñ nax suñu bopp nañ dem ut métier buñ amee ci luñ jàpp boole kook làmb ju yoon bi day nooy. Mm. te aussi tamit li booy say wax am na solo mooy ko mobilisation mbër du da dem entraînement rek dem saal def lii ñu topp la déedéet daa am cër boo war a jox sa dëkk daa am cër boo war a jox sa dëkk. ngay respecté sa waa dëkk. yërëm xale yi jox cër ñu la mag bëgg mag ñi. te moytu jigéen ñi. moytu jigéen ñi loo loo koñ bi loo loo loo dox ñu dox ci loo wax ñu wax ci. jigéen ñi de liñ fi yàq. da xool de man man sam bopp laa koy wax toog naa ay guddi yoo xam ne lu ma sam bopp dara. waaw te pourtant su ma ay moroom ñooy ñëw di def ci man. waaw lan moo ko waral dama leen a jox cër. di woon nit ñi di xuloog ñoom pour ñu ñëw ci yow. waaw billaahi. waaw kon respect réciproque. waaw cër boo ko joxee dañ la koy. delloo na mbëri jox cër gox bi ñu dëkk bu jógee ñu mën a jóg. comme li mu wax lu mel ne Louga Ndiago référence la seen raq la mais référence la waaw koy félicité la fois ah. waaw waaw ñu mu nekk booy bu bien di ko ñaanal carrière am suñu borom defal ko ci jàmm. amin te aussi ak loolu làmb maanaam nañ gën a fàttali ko làmb parce que làmb day defar lu bëri ci gox bi. léegi yow léegi gis nga dégg nga li ñuy waxtaanee ah? mbër yi ñu ci ëpp dañuy wax nañu mbër yu mag yi jàppale nañu mbër yu mag yi jàppale yéen bi a nekk mbër yow utoo woon ndimbalu mbër yu mag yi. loolu amul parce que man bi may débuté si bëre mun naa ne saret laa yoroon. Mhm. saret laa yoroon maa nga boole bëre bi de dem ba mu yàgg ma dem defi formation garde rapproché loolu yëpp maa nga boole woon ak bëre bi dawaloon naa mun naa ne ñu bëri dawaloon naa ne fi ay ministre yu liggéey na maa ngi ñoom ñu am ñu si bëri ñoo xam ne liggéey nañu liggéey nañu sécurité ba tàyyi te loolu yëpp dama ko boole woon ak làmb ji comprendre nga boole kaak di bëri ji mais nag jamono jamono jamono jooju boo xoolee man mag ñoom Lac Rose ñoo génnoon ok groupe boobu. waaw man catégorie ñoom Lac Rose. maam Balla. voilà man su ma nekkoon si làmb ba léegi. kon maa ngi may booy sens ay ñoom Sa Thiès ak ñoom Seydou ñun kon maa ngi may sens. wala maye sens may sens booy naa ko rek si boobu laa bokk. mooy Malika de boo ko mayee sens. voilà nekk naa mbër boo xamante ne nag. Mm. waaw mbër musuma yenu mbër musuma dóor ma daal. am na boo yu bëri yoo xam ne. mais xon nañ la mais xon nañ la quand même. daan nañu ba nga yëg ko man combat. man benn combat laa mos a bëri boo xamante ni sentir naa ne tey jii moom gàllaaj am sax parce que sama loxo yi rek ñoo. ñoo doxul woon yow ban loxo ni nga ñëwee bi <laughs> léegi moom mooy loolu Modou Mbaye a xam. <laughs> mais tey solution bi lan mooy solution bi lan la ñu war a def ngir làmb tey nag waaw léegi nag moom ñu ne jeex na làmb moom jafe-jafeem la nañ ko pardon. na état bëgg làmb rek état bi nañ bëgg làmb xam nga problème bi mooy dañ leen di raay raay te ñun ay xale lañ ñun avenir u Sénégal suñu loxo la nekk. waaw ñoo ko yor de. bu ñu leen raay nañ leen wax dëgg. wax dëgg mooy nañ bëgg làmb ji jàppale làmb ji. waaw comprendre nga gis nga promoteur yi promoteur yi dañoo am seen xaalis ñëw di dëgg sax te amuñu ay sponsor waaw xam nga loolu yëpp état bi dugalul loxo dëgg la kon promoteur yi bëgg nañ comprendre nga télé yi dañuy ñëw di jàppale promoteurs yi waaw mbër mu fi génn télé yee la génne. bilaay dañuy maye publicité lépp lañ koy maye. di invité mbër yi di invité comprendre que kon état moo war a ñëw dugal loxoom si làmb. ñun tey bu ñu ñun ñun li ñuy dimbale as ñëw sax mooy ñi ñuy dëkkal te ñuy te ñuy jàpp dimbalee as tuut ku si nekk koo ci fëgg tey am na benn benn nit boo xamante ne bii mi ngi koy jàppale tuut tuut si carrière mais état jàppalewul dara dara dara dara si làmb bu ñu jugee nag naan maa ngi gërëm ministre bi maa ngi gërëm ministre bi bu ñu soxlaa ñëw utiliser ñu bu jeexee ñu fàtte ñu parce que bul yaakaar ne da nekk si donkaase bi rek ba dee de day ñëw de gaa yaa ngi dee de barki Serigne Bamba Mbacke te dee amul président amul ministre amul dara ñëpp ay dee. initiative bii nii loolu si loolu si wax. mais lii dafa rafet. so day am na groupe association nationale des lutteurs du Sénégal Gris Bordeaux moo ko jiite. Mhm. am na groupe association des jeunes lutteurs Sénégal. mooy bu ñu kii jiite. Modou mais si benn Modou mais man bu ma demoon bay bokk. xam ku si nekk nit boo ko joxul lekk mënoo ko teree wax. si internet na. di ko seetaan. waaw dem bokk. non <laughs> non non loolu moom dëgg xasuma ñeneen ñi de. parce que après lay wax lu la metti ngeen dund leneen si biti te du ma ko loolu ma ko dund ak ñoom mais yéen ñi xam ay mbër ngeen ñaari kuréel est-ce que baax na ci mbër. non loolu mënul ne kon dañ mel dañ ko def comme genre CNG dëgg kenn ko raay nga mbër yi dañuy naqar ne seen biir kii mënul am fi groupe am fi yi Modou Mbaye luy jëmale làmb kanam na ko gars yi def làmb ñu ko yaakaar dafay dafa bari comprendre nga ñun suñ doole moo ñu fay du ay caaxaan ay ñoom Modou Lo ay ñoom Balla Gaye dañ ñoo gën gënuñ ñu gën ñoo nekk noogul. déedéet lan la.

ñi ma jàpp ne ñoo ne ci kaw te àdduna noonu la ñi dañuy ne ci kaw ñu ne ci suuf waaw mais pour man làmb war ñun waruñu xaajaloo déjà fi làmb toll nii làmb dafa souffrir parce que tey man ni ma daan ni ma daan sentiree làmb di dund làmb ba koñ bi sax jàppee ni kii wérul wala dafa dof cent vingt nit gëj naa yëg loolu mm-hmm. c'est parce que làmb ni muy dundee la parce que da ngay entraîné ba am yaakaar pour bëre leneen xewaat kon ku mel ne ay Gris Bordeaux Balla Gaye ñi jàpp ne ñoo ne ci kaw nañ woote waxtaan réeroo amul ñàkk waxtaan moo am pour man te làmb instant bi nii lu ko defar moo gën lu koy yàq te liñ ñuy def nii loolu lu ko yàq la mm. booy malaka taxaw xas booy sëy booy sëy taxaw fii xas booy malaka amul chance ñun ñooy mayante xaalis te ñun ñii ku ci nekk ñaan nga yàlla ñi ci kaw may la may la loxo parce que ñi ci kaw dañoo nekkoon respecté ñi ci ñi ñi ñoom bi ñu nekkee ci suuf dañoo respecté woon ñi ci kaw. parce que kii dafa wax boo sëy dafa wax lu garaaw man damaa dem dëju papa Balla Gaye am ñu ma laajte ñu ne ñëwuñu ah. ñooñu duñ ñëw. xam nga waral loolu Baye Modou. parce que wax yu ñaaw yi ñuy wax la rek moom. xam nga lu waral loolu. jaru ko man maa ngi soog a xalaat li muy wax nii li muy wax lu am solo la. parce que dañuy jël làmb def ko guerre. alors que du guerre. Sénégal dafa ndaw quoi Sénégal xat man kii bi ñu ko ba xool fu ñu maam dañoo bokk. billaahi billaahi lu grave lay wax. gars yi nañu rafetal àdduna mu solo. ñun booy ñoo dem ba xam loolu mag ñi nañ xam ne dee ñëw na ñun xale yi xam nañ ne dee am na de. waaw booy yi dee kat bare na. na ah. ma gis damaa la baal maa xaw ma kan <laughs> waaye Modou. sa xarit Papa sa parce <laughs> que Modou Mbaye mbëri tamit comme manager yeeg entrepreneur yi ñu amee euh, ranking ci bi beneen saa yu mbër dina am ay mbër yoo xamante du ci ñàkk du ci ñëw waaw mais lii dafa nekk loo xamante ne lu rafet la parce que tey jii yeneen mbër yi bu ñu toogee si image télé bi gis lii non seen xol seen xol dina sedd joli par 15 jours day sori non man pare naa dëgg la dëgg des de naa. non Modou xam nga te man xam nga lii ñun dañ koo def rek juste pour unir làmb. te jo gis nga kuy def lu baax. sax bul bañ ko la xas léegi chaque semaine <laughs> semaine bii di ñëw nañ préparé dinañ fi indi yeneen trois boy wala quatre ñu waxtaanee ko parce que Modou xam la dëgg la te dañuy daw di ñëw di ko dëgg la kii day seetaan si lamb rek ay ñaari taxi dañ koy topp te day seetaan si kese kii la même chose kii la même chose kii keroog ay saret laa gis ñu topp <laughs> jàmbaar la nag. Alioune Diop àll bi lay nekk di ko ñàkk. dëgg la billaahi wallaahi taala sama patron nag Assane Diallo war nga koo seeti nag. waaw promoteur mag bi. waaw di nga fa dem waaw di nga fa dem. waaw xamal ma Zoé sama promoteur. waaw xamal ma Zoé sama lépp. waaw waaw loolu dëgg la mais li nga yaakaar rek yow yëpp ko Assane Diallo. bëgg lamb la te da lay liggéey. incha allah di nuyuwaat sa sa père. waaw père Begaay sama père Begaay Ndeye waaw. joxal ma ko loxo bi joxal ma ko loxo bi <laughs> kontaan naa gars yi. ñu ngi waajal màggal gi. waaw ñu ngi waajal màggal dem fu ñuy màggalee sukóor yi Sikoro laa maagale. maam ni Sikoro laay maagale. ba ci jour bi ma doog a dem Touba. ah bis ah waaw Modou man kër ma dëkk Darou Moussi Seyna moo ko jox sama maam sama maam moo nekk ñetteelu taalibi Seyna Ousmane ay dàllam ay yéreem ay mbubbam si kër gi man Sikorien la su ma neexee ak su ma naxaree. ah comprendre nga. ma leen oh. nuyu Papa Ndoye borom borom borom daan nga ay borom baax ñu daan teral de ana ñooñu. ñooñu dañ ma off <laughs> sama papa sama xarit King maam Thierno. maa ngi koy baax di nuyu waa na fi teew mais dafa am si moom lépp moom moo ba mu fekkee ko. fa la dem heureusement fekkee na ko la ko fekk di information la saa bokkal ñëw na. ñëw na ñibbisi na. ñëw na Sénégalais yi xamaa moom ak Max. moom ak Max yëpp ñibbisi nañ. ñëw macha allah ko gars yi te bientôt di ngeen leen gis si Bantamba. lu war a waaw dëgg la. mbër yi nañ rafetal parce que na yàggul Modou man amul benn mbër moo amal. déedéet xaar sa adversaire sax da koy tooñ. fekke naa wallaahi naa dégg. bu ma déggee man du ma amul benn mbër boo xam ne nii écharge sax maanaam man lamsaar bu ñuy tàngal sax maanaam noonu bàyyi leen mu sedd parce man xaw loolu. na rafet rek àdduna yàggul. macha allah di bëggee waa Soumbédioune ah, waaw waaw. képp kuy liggéey yaranka maa ngi lay bëggee sama mbokku marier yëpp maa ngi leen di bëggee. waaw jën yi kañ koy indi kër ga. léegi nii sama mbokku marier yow nekkatoo marier bàyyi nga yaa ngi ci terrain yi léegi yaa ngi ci yi. bàyyi nga jaay jën yaa ngi jaay suuf bàyyi ma dimbali ma xam naa lépp man deret jën lañ la ngénte waaye sànni nga deret ba di yóbbu ko suuf. di sant képp kuy liggéey pul pul maa ngi lay sant bu baax a baax ku ci mel ni Omar Faye day sonn si man bu baax a baax a baax sama xarit armée général. waaw suma yaay pël bu rafet sama papa daa daa sumaare aw ma fayam kooku suma lépp la dëgg yàlla day sonn ci man A ba nii la demee mbokk yi saa su nekkee rek bëgg nañu di yokk bëgg nañu di def loo xamante ne nii mooy tax sénégalais yi xam ni làmb benn bopp la. sénégalais yi xam ne làmb ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ay ndaw ñoo ci nekk yoo xamante ni yu am jomb bëgg seen réew di dox ci luy développer réew mi kii xale la boo xamante ne nii Sénégal lu ko du développé rek moo ko ñor kii la même chose Aline Diop idem Boy Malika idem man mii idem muy groupe boo xamante ne nii ay xale lañu yoo xamante ne nii réew mi rek a leen ñor kon waa réew mi nañ leen bàyyi bàyyiwaat xel rawatina sunu ay njiit tëj bi yàgg na nee nañu mois d'octobre làmb dina tëj tijji ngalla bu tijjiwaatee buñ ko tëjaat bu tijjee buñ ko tëjaat quoi nañ ñu bàyyi ñu continuer ñu liggéey ndax xale yi mën a épanouir xale yi mën a bég xale yi tamit mën a fayeeku ndax di leen jaajëfal bu baax a baax ñi ngi ci safar gi ñi ngi ci wàccaayu màggal gi yàlla nañu ci yàlla yóbbu ak jàmm yàlla nañ ñëpp dem ci jàmm chauffeur yi ñu teel leen ko wax daw nànk sëñ Fallou dafa ni woon nga ni nikk bu dëgër te ni jàkk bu ne tàccit nga ni tekk mu ne yàng nga ni yollu mm. <laughs> c'est le bantamba c'est le meilleur waay kon Rambo moytul ñu daan na la oh, il est prêt il est prêt waaw waaye bàyyi leen ko waaye xoolal booy yi. kon si jàppoon na tànk bi jàpp na tànk ndax day yenu ba ci kaw. jël ci suuf maa wax li yenu na ba ci kaw jël suuf.